gars yi maa ngi leen di ziar di leen bëggee di kontaan ci yéen di leen ñaanal jàmm tey nag dañu bari information yu am dafa jaxase nag fële ca Espagne ak fële ca Argentine ba pare laal ci làmbi Balla Gaye ak euh, Eumeu Sène ji ni ñuy waaj wala Modou Lo wala Sokh loolee lépp liñ ci war a indi ci ay leeral. gars yi da ngeen ko am moo tax topp Aladji Malick TV ci information yu wér te yi nga xam ni ah, mi ngi leen koy ah, jalba jalaanoo loolee day nekk loo xam ni lu am am solo la ci wàllu information ci biim réew ak bitim réew ndax seen bi yaakaar naa màcc na ci loole te loole tamit moo nekk li nga xam ni mooy mébétam ñëpp nag mën a am information yu wér ma sàkku ci yow mi di ma door a seetaan pour loolee dara bañ la cee ràcc nga ràccantal buum gi maanaam abonné ci seen bi def li nga xam ni mooy sa euh, notification lu ñu dugal nga mën ko bokk ci ñu koy njëkk a coppati coppati leen kii di endre André Messi bu ngeen gisee ma indi ko gars yi dañ ko namm nag di ko wax ni namm nan sama sunu seen waa mi ngi ci jàmm bu baax a baax ngi doxal mi ngi gondaandaat bu baax a baax waaye nag fi ni daa nekk ci ay tànk ba waaye nag euh, lépp a ngi toll loolu lépp tawféex am nag tan bu baax a baax euh, teyit ma nga continuer sax jógee ca fa mu doon fajoo mi ngi ci euh, li nga xam ne mooy ay vacances am waaye nag tànk ba ma ngi koy bàyyi xel bu baax a baax Messi mun na a ñëwaat fële ca Miami boo ko defee doxal bu baax a baax ak équipe bii di Argentine pour ñëpp ñi nga xam ni ah, nam nan kii di André Lionel Messi man cee jotaat France Luis Fontaine ngeen gis ko yaakaar naa du doxam Fontaine nag mu nekk fële entraîneur ah, bu Espagne amatul lu muy gagné amatul bànneex bu mu war a mën a jox Espagne bu raw bànneex bi nga xam yaakaar naa ni teg na ko ci taabal ji jox leen ko mu nekk bànneexub lii di ah, coupe d'Europe ba doon am fële ca dénduk Allemagne te ñoom ñu jël ko nag mu nekk loo xam ne lu mucc ayib la gars yi damay dem ci làmb ji ngeen attiré seeni ceinture gars yi nag dama am lu ma ci naqari lu bare bari xam naa foto boobu danaa ci ñëw waaye damay commencé nag ki biir làmb ji nga xam ni Balla Gaye de sëgg na ko ak kii li di en Tapha Tine Balla nag sama xarit la mais teewul nag làmb ji man dëgg rek laa ci àtte mais dama gis ni euh, Tapha Tine euh, ni mu ko doxalee moom ci làmb ji jaarul yoon moom it Tapha Tine est-ce que est-ce que andi woon na ab nit koo xam ne koo ko mën a jàppale parce que fii ci image bi ma leen di woon dafa am solo Tapha fii mu sëngéemee dama may vidéo yu may seetaan wax dëgg yàlla métti na ma lool de maag benn xarit ñuy seetaan vidéo yi ba ci démb ci guddi ñu gis Tapha Tine jóge ci biir géew bi ñu ko mu ànd moom kese demaat ba ak ci presque cumbukaayam kenn kenn ku gën a néew maanaam toppul Tapha su ma ko mënee waxee loolu xam nga Tapha Tine mu sëggéene ci géew bi amul benn mbokkam bu ñëw fekk ko ci géew bi nii nii nii ci image bi image bi photo la mais am na beneen image boo xam ne vidéo la droit d'auteur yi tax mais Tapha jóge na ci géew bi dema dem ba génn ci làng gi moom kese amul benn doomu aadama benn benn benn bi gën a néew ku jàpp ci loxob Tapha Tine dalal ko xam ma nag ba mu demee ba àgg ci cumukaay yeegu waaye li nekk na loo xam ni lu may partagé la bëgg ñëpp jot yéen tamit ngeen partagé image bi parce que lu ñaaw a ñaaw la parce que nit ki moom sooy ànd ak moom su amee victoire ak su amee défaite nga war a yemale parce que man gis naa ni am na mbër yoo xam dañ leen di daan ko ci mel ni yaa ngi gis si ta kii Balla Gaye euh, bi mu daanee ki nga xam ne mooy Ama Baldé euh, wala Boy Niang comme ci man di doon ngeen jubbanti ma bi mu ko daanee ba pare maanaam avant sax jël bii leer am na ku jóge ca lang ga daw maanaam daal di leen taqale ab supporter ci ñum àndal loolu lu mu yone mooy cafeel goo xam ne am na ko ci seen bër bala moo gaañ wala dara di ko fekk kon ba tey ci débrief bi nekk loolee nekk loo xam ne lu may ñaawlo la te ñëpp bi vidéo ban jot ndax Tapha Tine lu mu bon bon am nañu mus a jariñ ci ñeneen stade bi am na ñu mus a jariñ ndax ànd na fa ki nit ndax oto la dugg te oto ba am na nit ñu dugg ci li nga xam ne mooy tribune sport moom it ngeen gis ni tout ça pour ça wala tout ça pour rien Tapha Tine coow li yëpp yaakaar naa ne mi ngi ci kawam ndax dañu gis ni maam man dama comprendre tout quoi parce que àdduna du noonu àdduna du ay victoire àdduna du ay xaalis àdduna du dara àdduna lim doon mooy ngor wax dëgg yàlla euh, sunu làmb nag ngeen gis moom ci potentiel adversaire yi nga xam ne Balla Gaye 2 euh, war na koo am potentiel yi nag dafa mel ni la day bëgg am problème adversaire ndax adversaire ñett ñi taxaw ci ñëpp nag nangu ni loolu lu taxaw la Modou Lo maanaam Eumeu Sène ak Sokh Balla nag jël Sokh loolu mooy risque risque du mën a romb loolu Sokh Sokh bu tuur moom Balla jël ko risque ndax bu fa Balla amee defet day suuxloo Balla ci biir Soxba li amee victoire it victoire ba du ko mën a jariñ lu bari ndax soq nag jàmbaar la nag mais wax digg yàlla euh, Balla mu war a mën a dem ci kaw daan ëmb seen mu ko daan ñaar yoon loolee bokk na ci li ma jàpp ni mën na nekk lu am am solo ci Balla Gaye 2 su fekkente ni mën naa ne moo ko ëmb seen Balla jàpp ni dana ci am ndam ndax ëmb seen moom ku naqaree bëral la Balla ëmb daan na ko ñaari yoon beneen bi mooy Modou Lo Balla daan na ko ñaari yoon bu 2 amee. ragal naa 2 dina am ndax mooy mooy mooy mooy seen combat day day. day doy waar waaye gars yi xibaar foofu lay yem ñu commencé nag diglu kii di cuun bi ci interview bi amoon après bu ko defee ñu dellusiwaat. mbokk internet yi suivre Aladji Malick TV ñu ngi ak cuun euh, bitik euh, le star international ndax yaakaar naa ne nit la koo xam ne Sénégal yëpp ñoo koy bëggee borom kontaan naa ci abonné yi comprendre ci sem cuun maa ngi lay ziar. waaw Aladji maa ngi lay bu baax. di la bëggee di kontaan ci yow. waaw fii la koy maa a di ziar waa Thiès gi yëpp naka sa voyage. waaw ñu ngi sant yàlla baax ñu ngi baax a baax alhamdulilah. voyage bi passé nga ko si jàmm. waaw waaw passé na si jàmm ak salaam si jàmm ñu commencé nag ak euh, li nga xam ne nag mooy cuun mm-hmm. euh, liggéey bu mucc ayib bi nga xam ne mi koy def ci dëkk waaye bala noo dem ci loolu. Mm. digganteem ak El Hadj Malick TV lan la parce que gars yi nee nañ xaw nga koo rey. <laughs> waaw gis nga El Hadj Malick TV moom. <laughs> Mm-hmm. xam ne ku baax la. Mm-hmm. Euh, parce que dama ko daan suivre TikTok gis muy joxe wàllum fubal. Mhm. day wax lu am solo. ma jël ma gis mu def numéro am ma jëloon ko woon ko appel. Mhm. Euh, muy appel bu Sénégalais yi lool nag. Mhm. waaw mu nekk tamit nit koo xam mi ngi Thiès di bay nekk bu baax nit koo xamante ni nangul liggéey la. nit man social la. nit la koo xamante ni tamit euh, créé seen YouTube boo xamante ni. seen YouTube bu am doole la. ñëpp di ko daw di ko seetaani. te du ko neexoon tey muy muy loo xamante ni wàllum saaga moo ci am. wala wax ju ñaaw mais defu ko wala muy dem di xool lu ñaaw nga di ko jël wala ngay xoole fu ñu xasee sëriñ si nga di ko jël mais defu ko da ubbi sa seen di ci doxal liggéey bu am solo di def ay social di waxtaan ak doomu aadama yi loolu moom vraiment lu rafet la te lu ñu rafet lu tamit waaw. Euh, bis ni kay ñu gis ni maanaam yow yaay premier ambassadeur u diaspora sopp na bi ci àdduna wala ngal kàpp maanaam foo dem ci àdduna ci bitim réew maanaam euh, diaspora sopp na bi yaay seen euh, ambassadeur ñu fal la ko tey kàddu yooyu njëkk a yëg ci li nga xam ne mooy sa diggante Ngouda ak loolu nga xam te teg ngeen ko sa loxo tey. waaw loolu moom mooy lim ma wax sànq mooy sant yàlla. Uh-huh. di wax ne moom buñ sañoon nag suñu waajur bu jigéen day fekk lépp comme waxee sànq rek waaye nag jaam ak pexem ak yàlla ak dogalam yàlla mooy dogal mm-hmm. te xool mooy mooy li gën ci doomu aadama mu xool ko def ko mais daal li ma la mën a wax daal mooy kontaan nañ mm-hmm. sama xol sedd na ci li ma nguur def man mm-hmm. tamit incha allah dinaa ko delloo ba nga xam ne delloo naa ko d' accord mu mel ni démb nga ñëw xam naa da ngaa sonn hmm. war a noppali ndax tournée bi nga xam ne doon ngeen ko tourné ak diaspora Soxna bi hmm. euh, tournée bi bu ngeen def mu des beneen pàcc. waaw tournée bi moom comme am na lu ñu def. Hmm. mais am na lu des. ndax comme ni nga ko waxee rek bëgg nañu woon fépp. ci sa foo xamante bi ndax man li tax ma ko wane mooy. man dama yéene wut nit lu bon. dëgg te lu ma yéene nit lu bon yàlla na ma sama man wala mu jam sama njaboot man ñëpp lu baax laa la ji te damaa xam ne saa yu kër dafa jafe. dëgg la am ko dafa jafe kon du la suñu borom dogalee nga gis koo xam ne daanaka kaamale bala terrain euh, dafa jar loolu ndax man nguura. Mm-hmm. dafa am benn suur man ko nguura ku la lebal terrain koo lebal terrain ñaata lay joxe mun ma noonu loolu moom du problème ndax nit ki doo ko lebalee. Mm-hmm. moo nga la weer bu na maa joxe temps nga jël loola mais doo tamit ne ko weer bu dee da nga joxe temps te xamu xam yor na ko da mm-hmm. ci laa xamee ne kii as la te li mu wax dëgg la parce que ki jaay ndox wala kii jaay euh, maat wala dara doon weer de deux cent mille nga joxe du ko mat waaye danga naan ko temps nga joxe dëgg la mu am solo bu baax a baax duñ la téye lu yàgg mais dañuy dugg rek euh, ci dernier euh, li nga xam ne mooy question yi mooy sa digganteeg maanaam Alaaji a diaspora Sopetel hmm. bon a doon wax loo ñuy wax waaw du ma la wax li ma la wax mooy diggante papa ak doom ndax papa Olof Njaay dane mën nañoo mag lépp hmm. ba mu des mag dëgg la kon sa papa sax mën nga koo mag léeg nag nit nit da ngay dégg naan diw sama papa la mu naan mais kii nu mën a magee kii wala kii nan la kii magu ko par maa ko sama papa la di xam ne olof njaay dana nit mën ngaa mag lépp ba mu des mag sa ki la mag rek nga mën da mag mais lépp man nga da ngay mag sa nijaay da ngay mag sa papa da ngay mag sa lépp mais doo papa mooy koo xam dalaa taxaw taxaw papa di waxtaan ak yow di la conseil di jël àllam di la ko jox ba pare loolu mooy papa waaw moo tax ma ne daf maa taxawaayu taxawaayu papa waaw mais nga dernier kàddu mooy nga wax gars yi ñu abonné ci Aladji Malick TV. wax ci li nga wax waaw li may wax nag mooy mhm. na gars yi abonné ci Aladji Malick TV. Mhm. nañu abonné nañu sem. Mhm. nañu a ay série yu mu fii ci Thiès. muy série am doole yoo xamante ni mi ngi ci def. mi ngi koy waajal te mi ngi waajal def kasim kon na gars yi te waajal ko incha allah te xam ne série bu am doole lay doon. te fii lay daw ci Thiès incha allah ndax xam ngeen ne Thiès fii la artiste ñaay. kon na ko xaar incha waaw ci kanam jaajëf sama waay